bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa bi fiika yàllaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi mbokki julli fi taw ci wuy yitte ji nga xam ne ci njëkk day yitte Cheikh Mouhamad Mountakha ndax Cheikh Mouhamad Mountakha li tax mu yitteem fii Cheikh Mouhamadul Bachir mu sëñ Abdul Xaadir moo toppatoo suuf si kem ni ko wajjur yi mu daan defee dem ci àll gorko ngir bëgg faa xeet li jullit ñi ku ne xam na ne eh, sum kilifa yi ku ci ne fa ay toolam nekk ba mu koy wut wut teraanga rek taxut ñu di ko wut ndax koo xam ne foo nekk da nga mënta ñàkk di la fekk sooy wut àll bu mel nii di ko gor bëgg a xeet li doomu aadama yi rek moo tax bëgg suqali koom-koom réew mi xam comme bu réew mi amee koom-koom rek kenn ku ci ne am nga ci wàll te sëriñ bi li mu daan dénk mooy bi ci njëkk mooy ñuy jaamu yàlla bi ci topp mooy ñuy liggéey kon loolu bëgg dimbali nit ñi eh, bëgg leen a wutal ngërëmul yàlla ak bëgg leen wutal teraanga yi tey Euh, moo tax ak ëllëg Cheikh Basir mi itam loolu mu ñoon fekk way jur yi mu nekk ci rek loolu la yeesalaat tax mu wut suuf si euh, yëgal ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu jox ko tur wi tool yi xisnul abraar euh, Cheikh Mouhamadul Muntaqa itam ci yitteel gu ko liggéey bi yitteel ci la ma jël man mi yónni moo ci Cheikh Mahmoud Bachir ci luy tax liggéey bi sotti mu yónni ma ci moom mm, ay teraanga yu ñëw ci liggéey bi ngir bëgg liggéey bi rek mate mate sëkk Cheikh Mahmoud Bachir sax moom bëggutoon sëriñ bi def ci dara waaye yéene ji mu am ci Cheikh Ahmadou Mountakha ak ñeewantu googu moom la Cheikh Ahmadou Mountakha itam am ci moom eh, ndax bi mu yónnee ci moom bu noppi itam dama jox ndigal ci ne nan soññi waa dëkk ba ndax Daaru Minam Saloum dëkki Serigne Mountakha yi Daaru Minam Saloum moo fi gën a jege ñoo ngi sant nag mbokki julli yi mbokki taalibe yi bàyyi seen seeni liggéey bàyyi seen i seen nekkuwaay ñëw ci wuyu si Cheikh Mamadou ci liggéey bi ñu ñaan yàlla mu nangu seeni jëf kenn ku ci ne aaju jëm fi indi suñu borom fajal ko ko kon nag sëñ Muntaxa moom ku ne xam na ne lu muy dugg lu ne yéene waaleel na ci ñëpp yéene waaleel na ñëpp loolu moo tax ginnaaw man xam naa yéeneem ci liggéey bi. ndax euh, jëf jëf daa bokkut ak wax te jëf la ci tàmbulee mm, door noo digal ñu soññi njaboot gi ñu àndandoo ñëw ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Ousmane Ndaw lañu may wax man nag jëwriñu sëñ Abdou Karim la mu sëñ Fallou borom makaarimal la waaye dañoo bokk ak jàmbaar yi nga xam ne muy sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne leeru sëñ Moustapha Bassirou la te mu féetee Saalum Kaffrine moo ñu jox ndigal ñu ànd ak moom ñëw ci liggéey bi tey liggéeyu sëñ ba Abdou Khadir bi waaw ci ruuj mi waaw xanaa am mbégte rek xanaa kay ab murit dafa fekk ne sa sëriñ su la soññee ci liggéey bu mel nii dañoo ah, yéene rek dimbali ñu ak ndimbal dong la ci jublu moo tax ñu am ci mbégte lool fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi jeex su ànd ak dogalu suñu borom. ndongale mi ngi tudd Abdoulahi Badiane moom Cheikh Abdoulahi Mbaye Kéré mbooloo mi ñu àndal ñëw fii mbooloom Cheikh Abdoulahi Mbaye Kéré moom Serigne Abdoulahi Mbaye kere moom Serigne Makhtar Mbaye Kéré soobu ci liggéey bi ni ko Serigne bi bëggee rek ñu fas yéene doxe doxale ko noonu mooy gaji geer yi déjjati ëkk yi leeral ko ba mu leer ni mu kem ni ko bëggee noonu la ñu sababoo ñëwee. positif rek ndax ñun amuñu ak bëgg akuk bañ li Serigne bi bëgg rek loolu mooy sunu bëgg-bëgg bi bëgg rek mooy sunu bëgg-bëgg te Serigne bi ko jox ndigal it liy bëgg-bëggam mooy ñu ñëw defaral ko tool yi te amuñu ku ñuy déglu ku dul moom mi di Cheikh Abdoulahi waaw ndigal pas-pas boobu rek it moom la ñu am ngir ni ko sëriñ bi wóoloo ba teg ko loxoom ci loolu ñu ñëw jëfale ko noonu rek loolu mooy pas-pas bi. waaw liggéey bi rek bu buñ fi dee dëkkit nag dañ fiy dëkk di ko liggéeyal waaw incha allah.